monsieur Barthélémy ñu ngi lay nuyu. ngi leen fay. Mm-hmm. ak tey lu waxaloon sa teewaay. Ah, ñëw dox si tànki njaal mu nekk tamit tànki mbokk. ñëw ah, jaale si ah, kii di président Ousmane Sonko. jaale si tamit parti bu ñëwee Pastef les Patriotes. wante jaale tamit mbokk suñu doomu ndey bu fi jóge di leen di wax si gi leen digaale di ñaan ku fi jóge yàlla na ko yàlla xare ci àjjana yu gën a kawe yi. di ko ñaanal parce que naam patriote bu daanu la wante martyr bu daanu la donc am nañ yaakaar bu baax a baax a baax que yàlla dina nangu ñaani yi euh, ay mbokkam ak kii di président Ousmane Sonko ak bépp nga xam ne jot nga ko xam wala jot jaxasoo ak moom ñu ngi lay ñaanal tamit yàlla may la xolu muñ parce que di metti na lool lool lool àdduna naam dëgg la demal maa ngi ñëw la wante accident moom amul kenn ku koy ku ci kuy kuy euh, kuy xaar accident accident day bettaate kon moo tax euh, choc bi nekk choc bu xaw a violent ci ñëpp. Mm-hmm. te wax dëgg yàlla moom nekkoon na ndaw bi nga xam ne nii damoon naa ba xamante ak moom mu nekkoon ku amoon euh, itte ku amoon pas-pas ak ku amoon pasteef te yëgoon ñit mm-hmm. daanaka des fois sax dama dem ci xew-xew. Mm-hmm. Euh, mu bàyyi Ousmane di ñëw ci man di ma photo ma ne ko yow yow yow. mu ne ma déet ñun man moom opposition laa fi nekkal donc wax dëgg yàlla je garde ce jeune homme de très bons souvenirs. Euh, te yéen tamit de la presse maa ngi leen di jaale parce que seen mbokk presse la woon photographe la woon un garçon très engagé donc euh, dañu ñaan yàlla rek lii moom mu mu gëj fi parce que adduna moom àla kulli yàlla yu mel ni dina am wante lii moom dañuy ñaan wax dëgg yàlla na fi gëj te di woote jàmm ak ci réew Euh, ban message yi ngay joxe parce que jamono ji gis nañ ne euh, langum politique bi bari na coow euh, tout récemment Pastef attaqué nañ koo fële ci Ziguinchor ak kaw ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa këru Doudou Ka yow en tant que leader ban message ngay joxe ci loolu. moo tax ma doon wax sànq maa ngi ñaan dëkk bi am jàmm. parce que accident la ñu wax. ñoom bu ñuy jógee Ziguinchor xamuñu ci ban état d'esprit lañ fa jógee. parce que dañ fa jógee bàyyi fa coow bu bëri. man je connais très bien le son euh, Ziguinchor euh, Dakar jógee Kër Ayib di dugg Kaolack ñëpp xam nañ ko tali boobu baaxut. Mhm. donc euh, nañu ñaan yàlla jàmm sax Sénégal parce que c'est sûr et certain que ñoom ba ñu jógee Ziguinchor ils n'ont pas quitté Ziguinchor avec un état d'esprit apaisé donc wax dëgg yàlla ñu ngi ñaax ñëpp képp ku nekk ci langue politique bi na doxal ak ànd ci ak gëm yàlla parce que am yàlla mooy buur ñàkk yàlla mooy buur. yàlla noppi na démb tey soog a ñëw donc ñu ngi vraiment ñaan na ñu ànd ak dal parce que des fois ñun ñii dañu yëngatu ci politique wante suñu gestoo suñu ginnaaw euh, ñuy ànd ak ñun sax daanaka ñoo ñuy ëpp xadar donc euh, moo tax vraiment maa ngi ñaax ku ci nekk ci ñun nekk ci langue politique bi ñu ngi dem ci ay élection nañu ànd ak dal nañu ànd ak xel parce que li yëpp ci maître yi lay mujjee ëllëg euh, Oui, je suis venu aujourd'hui pour euh, d'abord présenter mes sincères condoléances et mes condoléances les plus attristées à mon ami, à mon frère, le président Ousmane Sonko, au parti PASTEF les Patriotes en particulier, mais à toute l'opposition sénégalaise en, général, en général l'opposition sénégalaise. C'est un garçon que j'ai connu, que j'ai pratiqué dans les manifestations, et quelqu'un vraiment de très aimable, de attaché à des principes, de déterminé et d'engagé. Et je disais des fois que dans des manifestations, il quittait Ousmane Sonko pour me suivre et me photographier. Et je m'amusais à le en lui disant je n'étais pas du mouvement PASTEF. Mais il me disait que lui, son objectif, c'était de faire rayonner les opposants et l'opposition. Et je me rappelle euh, de, des messages qu'il m'envoyait sur WhatsApp, des photos des fois. Et euh, je lui disais à quel point que j'étais séduit par son engagement. Et vraiment, aujourd'hui, je souhaiterais, au-delà de Ousmane Sonko et du pasteur, présenter mes condoléances les plus sincères et les plus attristées à sa famille biologique. Priez pour le repos de son âme. Et vous aussi de la presse, vous présentez mes sincères condoléances. Et vraiment, euh, priez le bon Dieu qu'on n'ait pas à se retrouver dans de telles circonstances, même si nous savons que la vie, elle est faite d'épreuves de cette nature. Mais nous prions vraiment le bon Dieu de toutes mes forces qu'il puisse l'accueillir en son paradis céleste

dafa demee ndaw waaye dem gu berte ñëpp xam na ne accident moom du lu nit di xaar euh, waaye du moom donc ndax moom la ak yeneen ñaari membre sécurité bi muy ku ñu wax euh, Ama Ndaw ak ku ñu wax mussa Camara ñoom ñett ñëpp nag en plus de liggéey bi ñu doon def yàlla dafa def ñu nekk aussi mën naa ne ay membre Pastef ndax euh, li xaw a yéeme ci mbir mooy souvent bu ñu leen jëlee ñu liggéey après un mois deux mois rek dañ lay gën a sax adopté cause bi gën la koo bëgg euh, Fall nag yàlla dafa dogal ni euh, Pastef la nekkoon Pastef Dakar mu repéré ko euh, indi ko ci communication bi def ko photographe attitré wu président ko mu nekkoon koo xamante ne nii du ma wax ne mënuñ ko remplacer mais du jaf du yomb ndax en plus de son talent dafa nekkoon jeune bu am ay ay qualité ci wàllu diine ci wàllu ngëm-ngëm surtout ginnaaw bu mu jàngee alxuraan nekk un homme cultivé nekk un homme de conviction boo xam ni nationalisme ak patriotisme da ko doon dund laata Pastef ñiy suivre page am yàgg nañ gis muy posté surtout si côté Afrique di wax ci ci ak ay idolam ay ñoom Thomas Sankara ak yu ni mel ndax lu mu gëmoon la lu mu doon dund la mais dafa nekkoon aussi nit bu discret xëy na parfois boo ko daan boo ko daan wax ak moom sax wala doon ko reproché dara discrétion nga koy reproché parce que danaa ko photographe foog nga gën a njaxlaf mais moom euh, dafa amoon discretion bu bu yéeme mais nag engagement mooy ça fait quatre ans cinq ans amul benn activité wu Pastef boo xamante ne nii wax nañ ko ko mu gàntal waxuma la dara mais parfois sax moo may woo ne ma am na activité fële ndax mën naa dem mën na ko demal mu nekk lu mu gëmoon lool bu jaree fanaan siège ay jour de koy fanaan siège ndax day photo ñëw monter envoyé événement mars yi weesu pendant un mois kër Ousmane la doon fanaan ndax bañ benn événement rëcc ko euh, donc bii passé tamit noonu tàggu na ma ne ma maa ngi dem Ziguinchor ma ne ko d'accord yoonu jàmm et cetera def na liggéeyam ba mu sotti def na li muy def yëpp. envoyé message ne ma photo yi monté nañ ko yónnee naa ko Mame Mbaye ma félicité ko. ci la ñu gëj a déggante ndax bi mu xëyee la ko la ko la ndog-ndog bi am. ah Ibrahima Fall nag euh, c'est perte la bu mag a mag a mag wax dëgg fa yàlla pour Pastef mais pour ñi nekkoon su ci réseaux sociaux yi di suivre ñëpp ndax ñi fi teewoon tey xëy na xaaj bi sax bokkuñu Pastef mais c'est juste que dimension nit ki la ndaw la mais man mi ko jege xam naa ne kilifa la donc di ñaan yàlla mu xaare ko aljanna euh, xaare aljanna aussi ñam Ama Ndaw ak euh, Moussa kamara ci situation yu métti dem nañ seen kër yi démb mais xam nañ ne yombul ndax lu bett la surtout que ñoom ñett ñëpp ay soutien de famille lañ donc mu nekk lu métti métti métti Euh, di ñaan yàlla rek euh, fa ñu jëm gëna leen fuuf fi ñu jóge waaye tamit euh, li nga xam ne moo nekkoon seen mbébét ñu koy wax di ci dox guddeeg bëccëg yàlla def ñu ñu mën koo yeggali ba ñoom fa ñu nekk ñu am yëg-yëg bi ndax ku ci mel ni Fall tàggoo na parce que bi mu liggéeyee ba pare mm-hmm. bi xeex yi di am ci aéroport bi mm-hmm. woo nañ ko ni ko mu def attention mu ngi ciy dem ak passion ci bi muy reporté parce que moo doon filmé di reporté mais tontoom ñëpp gis nañ ko mooy man soldaar la su dee dee naa ci toolu xare bi tamit ñeneen dinañ jël drapeau bi yeggali ko ba 2024 loolooy message bi mu mujjee lancé donc xalaatuñu woon ne bi mu koy wax ci ëllëg sa lay dem mu nekk loo xam ne tamit euh, souvent les grands hommes ñoom ñoo demee noonu. les grands hommes. tey ban taxawaay la parti bu mag bii di Pastef fas yéene taxaw ci ñooñu nga xam ne ñoo génn àdduna tey. waaw Pastef moom Pastef moom ba ñu commencé ba léegi lu weesu ñu génn àdduna lépp lu xew ci parti bi mii di bànneex ak naqar dañ koy bokk ak suñu ay militants ak président Ousmane Sonko daanaka même yi nga xam ne dañuy dem ci yeneen anam yoo xam ne sax du accident du dara. chaque fois di ngeen gis ñu ko Sonko sol dem jaale ji ak fu mën di nekk parce que ñun noonu la ñu jàppee ànd bi on on se dit pas camarades on se dit frères et sœurs benn famille lañ comme benn famille lañ nag lu wokk kii rek keneen ki yëg ko looloo tax yi saa yu mel ni amee ba ci sax li xewoon ci mars bi nga xam ne ginnaaw ba ñu demee jéem am lu luñ teg ci loxo njaboot yi nga gaañu la yëpp ba fii ñuy waxee tey ñëpp ñu ci amoon ay gaañu gaañu ñoo continuer di leen faj ba fii ñuy waxee tey donc lu mel noonu la ñuy wéyal di def ak njaboot gi ak waaye tamit ñi ci gaañu euh, ñu xam ne affaire bi famille la te képp ku ci nekk ak lu la ci mën di fekk duñ la mës a fàtte parce que li ñu tax a jóg moo moo ñu li ñu boole moo ñu ëpp doole mooy suñu réew mi liñ ci namm te loolu nag euh, wax dëgg yàlla bu ñu ci àndee jàppoo ci nekk ci benn nekk ci famille dina tax incha allah mbébét boobu ñu yeggali ko képp koo xam ne ndog ndog fekk na la ci wala bànneex dinañ ko bokk ak yow def ci li ci war te ni ñu ko defee woon noonu lañ koy defaatee fii te dafa sax am na ñoo xam ne dañu sax xaarul ndigalu parti bi mm. diaspora bi lancé nañu benn cagnotte ci Kopar Express ngir fexe euh, dajale le maximum de fonds possible daal di koy mën a dimbalee njaboot ñu dem donc loolu euh, ci ADN Pastef la bokk te incha allah euh, dinañ ko def ko ci anam yu mu waree. maa ngi leen di jaajëfal man tamit jërë ngeen merci. tamit yàlla boole nañu encore depuis des années mm-hmm. ñu bokk di liggéey ànd ak moom fu nekk. ba yàlla def nag euh, lu gën daal waaw kooku moom wax dëgg yàlla damay tële sax pour wax ci moom parce que dama ko yar dama ko yar waaw ça presque dix ans wala mu ëpp ko sax mu yaru sam kanam may liggéey ay magam ba yàlla boole ma ak moom ma téye ko ci loxo nanguwuma ko bàyyi fenn di ànd ak moom fu may dem damay ànd ak moom yàlla dogal nag bi ko yàlla booleek euh, président Ousmane Sonko bon bokk naa ci ñi nga xamante ne nii dama ne ko bàyyil ngénte yi ak mariage yi nga dem wu du affaire xaalis mais responsabilité la parce que yàlla moo xam lu muy def moo la booleeg moom demal nga concentré wu mu topp ko nag ba pare nekk xale bu am conviction gëm boppam nangul liggéey ba pare yaru dafa yaru trop booy bi doo dégg kàddoom buy wax sax boo ko dégluwul bu baax doo xam lu muy wax tellement que dafa yaru yàlla moo ko yaral boppam waaw te aussi tamit beneen témoignage bu ma mën a wax ci moom booy bi waxtu julli du ko raw waxtu julli du ko raw boo àndee ak moom cérémonie waxtu julli bu jotee lépp lu mu doon filmé da koy bàyyi dem julli ji kon xamoon na li ko tax a jóg waaw man nag euh, am naa xol bu fees dama koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla euh, yóbbu firdaws yàlla na ko àllaaxiraam gënal àddunaam yàlla na mottale ndawam àjjana te tamit euh, ñu xam ne rek ñàkk nañ xale bu amoon valeur loolu moom nañ ko xam xale boo xam ne exemple la ci génération am waaw xale bu teel a gëm boppam teel a bëgg lu baax te yàlla xam na ne mën naa ko waat àndoon na ak président Ousmane Sonko mais àndul woon ak moom ngir alal dafa ko bëggoon te yàlla rek tax loolu moo ko dugaloon ci moom muy ànd ak moom ànd bu sincère mu jaral ko lu nekk loolu moom dama koy dama koy seede quoi. décès bi bi moom comme ni ko ñëpp yëgee rek nekk lu bette nekk lu metti kenn ku nekk doon xaar mu dem ci jàmm ñëw ci jàmm ñu jëkk rek daanaka ci réseaux sociaux yi lañ ko yëgee ñu sant ci yàlla xam na tam ndogalu yàlla la yàlla moom bind na dund bind dee ku ci nekk rek sa bis ni mu war a demee yàlla programmé ko programmé na ko lu juit sa judd te ay jullit lañu aussi dañuy nangu ndogal rek waaw mais nag lu metti la parce que jeunesse avenir laa ko tuddee woon jeunesse avenir waaw yàlla xam na ko. d'accord si soxna si moom wax dëgg yàlla moom duñ ko dénk lu dul di ko gën a woo rek di ko gën a réconforter te ñun aussi euh, famille bi ñu gën a taxaw ci wetam vraiment encouragé ko càppale ko nag ci côté yëpp te xam ne aussi ñoom ñaar ñëpp ay xale lañu woon. yàlla moo programme woon ne waroon nañ am alxayri mais yàlla moo programme woon ne aussi waruñu woon mën a consommer seen mariage lii la yàlla dogal dañ koy nangu di ko ñaanal yàlla aussi moom xale la yàlla sàmmal ko boppam lafal ko cat yàlla taxaw ko jàppale ko ci liggéey bi ba mu mën a yegg si jàmm incha allah rabbi ok ba tey ni ñu leen ko waxee rek ñu ngi fii ci Grand Dakar euh, li ñu fi indi wax nañ ko sànq génn àdduna Ibrahima Fall waaye ñu fekk fi kenn koo xam ne eh, ci naataangoom la eh, di Pape Malick di suñu xarit ñu nekkoon woon ñoom fee ci arène bi daan liggéey liggéey bu am solo ba yàlla dogal li mu dogal ci la ko yàlla boole Ousmane Sonko mu féete ci moom doon liggéey ak moom. kon moom bu buñ ko fekkee ñoom ñaar ñu bokkoon benn kër bu nu doon yëngu laaj nañu ay kàddu seede ci diggante ki dem ak lan lañ dund loo xam ne ñoom ñaar ci ay kàddu seede yoo xam ne xam nañ ko ci moom amaat la ñu ngi lay nuyu. Fadal lay ziar bu wér a wér mbokk yi yëpp di leen ziar bu baax di eh, wax rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun eh, li dem nag suñu rakk la suñu xarit la Pa Ibrahima nijaayam moo takk suma mag bu jigéen bon mbokk la eh, koñ bi ñu taxaw tey koñ bi la juddoo mu ñu bokk daara buñ jàngee suñ sëriñ mi ngi fële yàlla def magam moo doon yëngu ci audiovisuel mu màgg nekk ci moom it keroog ñu ma woowee wax ma projet arène bi dama ko woo mu ñëw di fa liggéey man ak moom ak mi liggéey bu am solo Pa Ibrahima demam dafa yéeme quoi c'est parce que bu ma la jeudi bii passé maa ngi Saalum déggante nañ mu woo ma ni ma day takk soxna samedi. damaa bëgg nga dem ci takk bi ma ne ko non man maa ngi nii Saalum mercredi bii passé ñoo yendu ba 18h bon euh, daawuñu réeroo bien vrai que jóge woon na arène bi nekk ci Ousmane Sonko am ci engagement nag. nekk nit koo xam ne ko am détermination nekkoon ndaw nag ndax jël soxna la 23 démb mu làqu metti na mais nag yàlla moo moom jaam bi ba mu koy bind tàgguwul kenn bu koy yóbbu du tàggu kenn dañuy àndandoo rek ah, sant yàlla bu baax ñaanal ko fa mu jëm yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana oyofal suuf ci kawam ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam lan moo la gën a marqué ci moom. Pa Ibrahima li ma gën a marqué ci moom mooy bëgg liggéeyam dafa ñeme risque ci liggéey ndax liggéey nañ quoi te xam nga liggéeyu làmb ni mu mel. làmb xëccoo la. liggéeyu liggéeyu liggéey la boo xamante ni boo yox yoxee doo am dara mais parensaay mu yéeg foo xamante ni yow da ngay tourner da ngay tiit boo ko waxee mun la noo image laay wut. pour nga woo ko yóbbu ko ci liggéeyukaay metti na. mais bu xasee yegg si sur le terrain moo la man yow ci boppam dangay dem ba da ngay jaaxle ci moom te Sonko noonu la doon defee ci Sonko dem na ba imposer boppam ba Sonko fu muy dem boo tourné gis ko ci ginnaaw te xale bu ndaw la bon loolu li ko may mooy bëgg liggéey da doon joob di joob ba trois heures di matin ndax caméraman yi xam nañ li may wax liggéey bi yombul mais ñu koy ñaanal rek yàlla bu ko ca jiitu ci bàmmeelam quoi nit ku baax la woon quoi. ban message ngay lancé ci ki mu àndaloon doon liggéey ku ci mel ne Ousmane Sonko ndax bàyyi na soxna boo xam ne bi mu ko takkee yàggul ci wàllu li des ci njaboot gi mu jàppale. waaw xam ndaw moom dèjà dafa metti te Paa Ibrahima dafa bokk ci famille boo xamante ni demeewul am nañ ngor am nañ diine am nañ jom barki Dembo Ndiaye la bi waajuram bu jigéen gaañoo yàggul. ça fait huit mois. waaw huit mois la def bon bàyyi na ay sœurs yu jigéen. ay magam yu góor am na ñetti mag yu góor yu fi nekk ñi ngi liggéey soxnaam gis nga ko bi mu ko takkee yàggul bon kooku ginnaawam amoon na lu bari lu mu ci waroon a bay mais yàlla nag kenn mënu xëccoog moom c'est parce que moo ñu gën a xam li war a ñëw Ousmane Sonko li may wax rek mooy mu mottali kóllëre bi ndax kóllëre moom ginnaaw lay féete waaw Pa amoon na détermination ci moom amoon ci moom engagement jugee na fi na jege ay mbokkam ndax àdduna moom loolu rek moo fi am solo rafetal ko rek ndax ëllëg si biir dinañ daje ci kanamu pencu yàlla ba ñun ñëpp ñu àtte ñu te ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla àtte ñu ci yërmandeem waaw Pa Ibrahima daal ñu koy ñaanal fa mu jëm yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana ko nit ku baax la woon Fadal yow tamit ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di gërëm internet yëpp ndax wane ngeen ni seen mbokk la yéen ñëpp a taxaw waaw ndax nit gaañu na fii ci koñ bi ëpp juddu Pa ëpp Pa tur taamul lii bon boo amee lii rek sant yàlla jërëjëf ñu lay masaw moo doonte yow tam ngeen bokk barab ngeen liggéeyee mhm. doonte ñaari baat la tam am na loo xam ci moom ñu lay masaw di la ko jaal ñu bàyyi la ay kàddu seede yoo mën a génn ci sa làmmiñ jëmale ko ci jëmm ji dem waaw Fadal lay nuyu bu baax a baax di la siyaar di siyaar mbokku internet yëpp comme ni nga ko waxee rek Pa Ibrahima moom ànd Pa moom ànd nañ njaareem ànd nañ Pikine ànd nañ Lamsaar ànd nañ fu nekk man nag euh, li may wax mooy que li ma marqué si moom laay njëkk a wax mhm. parce que open press Eumeu Sène bi muy bëreeg Modou Lo man ak moom ñoo àndoon man ak Pa Ibrahima ca Pikine xam nga yaa ngi fa woon Pa Ibrahima yàlla dogal na da koo bindee ndaama mook man ñoo tolloo te xam nga kuy caméra moom wala kuy filmer moom dañuy soxla nga nekk njool mais moom bu filmer ba pare yow da ngay jaaxle parce que doo xam fan lay jaar pour am image te open press boobu metti woon na taran na trop mais yaakaar naa ne jour boobu arène ba kum fa gënul image gënoo ko fa image kon loolu njàmbaarte moo koy waral xarañte moo koy waral ak liggéey bi nga xamante bi nii bëgg nga ko opté ko muy passion bi nga xam ne moo nekkoon ci moom bëgg-bëgg bi wax dëgg yàlla mu nekk koo xamante bi nii nag yàgg nañ trop man ak moom ak Pape Malick mi ak Moïse ak Pa Ibrahima ak euh, Emma ak Diougou saane ñun dañ doon faral dem fii di Grand Dakar kër jugu saane di fa tourner ay émission mais wax dëgg yàlla mu nekk koo xamante bi nii professionnel la ci li liggéey walaay laa si bett na ñëpp surtout man mii man démb laa ko yëg kër Ibrahima Faye Beuz laa dem sama patron ñu nekk foofu di ci la génne téléphone am di cliquer affaire yooyu nag ma ne ko yow kii Pa Ibrahima la ma ah, da nga ko xam ma ne ko kii arène bi la nekkoon ñoo nekkandoon fenn fu ñuy liggéey ma ne moom Pa lii laa si am laa dem marché asalem nii si liggéey booy dakaar mii moo ma woo ne ma maa ngi si la vidéo kooru Pa Ibrahima bi walaay naa si mu nekk koo xamante ne wax dëgg yàlla moom doy na waar trop fadal loo koy ñaanal waa li ma koy ñaanal mooy ko yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam waaw yàlla na ko yàlla xare àjjana te yeexe ñu wax dëgg yàlla sañuñu ko mettitlu ndax yàlla dee la njëkk bind comme dund xalaxal mawta wal xayaata ba pare wax na kulu nafsin saayixatin mawt kon yaakaar naa bu ñëwee rek dañuy dellu ci alxuraan rek donte dina metti nag mais wax dëgg yàlla dañuy am xolam muñ rek lenn rek laay wax muy sama dernier kàddu muy ko Ousmane Sonko bi mu nekkeeloon Ousmane Sonko moo tax Pa Ibrahima bàyyi arène bi parce que dafa doon liggéey liggéey bu am solo mais mujj na yàlla boole ko Sonko ñu ànd ànd bu rafet ba ànd boobu tax ba maanaam tey bu Sonko waree am tournage Casamance wala feneen wala mu war a dem fenn Pa Ibrahima du mën a ñëw arène bi lii moo tax mu jóge fa te ba mu fay jógee nag ci jógee bu rafet la fa jóge ba tey moom Pape Malick mii dañuy déggante man ak moom dañuy déggante nice mais li may wax Sonko rek mooy que comme bàyyi na fi li nga xamante bi ni mooy soxnaam bàyyi fa ay rakkam xam nga na taxaw ñooñu parce que bu gisatul Pa Ibrahima ñooñu la gis te wax dëgg yàlla kóllëre ginnaaw lay féete comme ni ko Pape Malick waxee comme amoon na si moom yéene yàlla dogal na ci moom la àndalan ba ndog-ndog am ci dunne kii la wala kaa la parce que kenn julit bu nekk yàlla wax na fa ngay faatoo moo xam mu neex wala mu naqari xam nga mais nag na sàmm kóllëre gi te wax dëgg yàlla na ci bay waaram ci famem bu baax a baax bañ yëg ko mënu leen a remplacer mais na leen taxaw côté taxaw ba nga xam fa leen Pa Ibrahima taxawoon faadal jërëjëf moo daan jërëjëf Fane.